jaajëfal nañ leen ci ànd bile mbokku internet yu 5M TV Sénégal ci xibaar yi euh, ki nga xam nag moom mooy député Cheikh Thioro Mbacké mu ngi woote nag képp ku nekk ci département bu Touba bu Mbacké ngir rek mu daal di génn rek wane meram nag jëm ci situation bi nga xam ne réew mi jamono ji mi ngi ko daal di nekkee jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne nag moom njiitu réew mi Macky sàll daal dina koy jël rek ni ko ñiix tëyee joxu ko kenn na daal di jël responsabilité am fi mu nekk nii rek lu mu ci góobee daal di ko ciy gar buñ ci bañ dara ndax xeex boobee dañ koy wëy rek ak acteur politique yi nga xam ne rek ñoom ñu nekk ci réew mi te nag bëgg salfaañe suñu réew mi moomee Cheikh um, Thioro Mbacké ma ngay woote ab mobilisation foofee nag ca garage bu njëkk ba eh, ginnaaw julli tàkkusaan bile mu jàpp ni kon résidence boobee lañ koy wax rek waaye tey ji lañ koy daal di amal foofee ginnaaw julli tàkkusaan bi ca Touba.